bon culotte boobu ak euh, yére bi ma jëlee Mauritanie presque sol naa ko benn un an moo xamante ne dafay tilim ma fóot après sol su ma waree dem ma àbb nit yére yére bi da koy neex heure bu ko neex rek la koy jël si man garaawul parce que chaque instant maa ngi jiital culotte bi donc soo nangoo yére bi damay des ak culotte bi garaawul hmm. donc euh, noonu laa def noonu laa def noonu laa def aar bi et puis famille bi ma nekkoon xamuñu ay affaire théâtre ak yooyu noonu def. dangay ngay dem ñu ni kii dafa bëgg nekk góor jigéen parce que jamono yi maa ngi commencé def ay lox. waaw Moustapha Gueye nag benna nit la boo xamante ne rek juddoo na usine ñaari tali màggee Grand Médine jàng fa sixième ba CM2 dem Cambérène jàng fa tuuti rek après mu bàyyi def mécanique jàng dawal oto poids lourd yi après daal di bàyyiwaat <laughs> enfance bu xaw a metti nag enfance boo xamante ni benn xale laa woon boo xamante ni dama ragaloon ndox déjà sangut <laughs> moom nekkul woon sama <laughs> euh, ma nekk ci benn kër boo xamante ni kër famille la am kër boo xamante ni sama papa ngi fi woon magam ay jabaram daal këru famille yu bëri nit yooyu noonu donc éducation il faut ñu forcer ko pour nga am ko parce que ñu bëri talu ñu woon parce que suñu yaay dañ doon xëy dem jaay marché donc dañuy wàcc midi ñëw fekkaat ñu ci kër gi noonu la demewoon euh, jàng bi tamit problème la parce que pour nga amoon pour sax problème la donc da nga doon tàqale fu yaayee dañuy tàqale papa yi di tàqale fourniture pour nga dem jàngi donc euh, école grand bi nag suñu kër moom malheureusement sorewul woon mais bon ak activité bi nga doon jàng xam nga état jeunesse rek coow li dafay bëri ci kër gi nga yenu loolu dem école stress bi ci biir famille bi même boo nekkee xale dangay xam ne kër gi nii moo yaa problème parce que mooy loolu il faut maire yi dem jaay ñëw pour kër gi mën a am dépense. aar bi nag xam naa moom par par par am naa am na côté boo xam don la mais bëgguma woon nekk artiste quoi loolu dinaa ci ñëw ni après parce que don la mooy bi ma nekkee xale dama tàmmoon affaire wu fecc nii musique Youssou Ndour laa a dégg. même classe dama doon toog bu ma déggee Baye Fall yi tëgg rythme rek ma ni madame bi damay dem sabi après du ma gisaat ba suba <laughs> bon bëgguma woon nekk artiste nag demoon naa pour ne militaire sama sama sama sama kii euh, sama carrière kii laa bëggoon nekk militaire laa bëggoon nekk ma dama doon topp militaire yi demoon naa bu bëgg a def engagement mais bon comme dama ànd ak sama benn xarit boobu xale laa maa ngi defoon ay ay ay ay ay dents sama gémmiñ beek yooyu mu ne ma woy fii boo demee dents yi dañ koy dindi parce que gars yi bëgguñu loolu ma tiit ragal loolu moo tax nekkuma nekkuma militaire bon aar bi nag moom dama doon dox rek hasardement ma taseeg dem bi ma taseeg moom sama beneen xarit moom mi ngi doon def aar mi ngi doon def aar ci nawetaan yi Pikine donc moom mi ngi doon def aar mais def ko woon bi ñuy ànd ñuy dox nii taseeg dem bi bi hasardement ne ci mbedd bi. parce que man demi bon même bu ma def loon aar sama fans dama ko doon seetaan ci théâtre boobu mu doon def sëriñ bi ginaar bi sëriñ bi ginaar bi xëm na donc ñu taseeg waxtaan ak moom mu ne boo am naa benn tur bu nekkee inte 10 ci laa commencé dem ci salle bi mais def naa salle bi presque lu mat un an yéeguma ci scène bi damay ñëw rek toog seetaan mais bon su sabar amee wala affaire yooyu man damay dugg parce que fecc laa mënul quoi mënu moon théâtre yooyu. bon avant may euh, dugg ci aada fekkoon ma nekk Mauritanie ñëw ñu rapatriement boobu xale la ma amoon benn euh, tubéy ak benn tiset kese laa doon boobu laa amoon donc pour ma dem répét su ma gisee may dem répétition da leen di daleen leen di da leen di jaaxal danoon def ni même su ma ñëwee àbb nit benn yëre pour dem euh, programme boo xamante ni dama waroon dem toog sax seetaan pour spectacle bi nit bi day ñëw ba ci fi ma toog mu ñëw wokk ma nii ma xool ko nii mu ne ma sama yére laa jël si. donc sol naa benn benn <laughs> bon culotte boobu ak euh, yére bi ma jëlee Mauritanie presque sol naa ko benn un an moo xamante ni dafay tilim ma fóot après sol su ma waree dem ma àbb nit yére yére bi da koy neex heure bu ko neex rek la koy jël sans man garaawul parce que chaque instant maa ngi jiital culotte bi donc soo nangoo yére bi damay des ak culotte bi garaawul. Hmm. donc noonu laa def noonu laa def noonu laa def aar bi et puis bi ma nekkoon xamuñu ay affaire théâtre rek yooyu noonu def dangay dem ñu ni kii dafa bëgg nekk góor jigéen parce que jamono yi ngi commencé def ay lox jamono bi euh, Demba Dia duggee Sénégal ñuy def ay rock mbalax ak yooyu ñu ni woy kii dafa bëgg nekk góor jigéen créel ma ci famille bi loo xamante ni mooy loolu boo nuyoo nit sax du la fay dangay dem ci dara ñu ni non bu leen ko nuyu parce que kii bëggul baax koo jigéen la bëgg a nekk affaire yooyu bon ma gëm ni comme ni ma gisee ni xëy na liggéey bu nekk parce que man dama teeloon bàyyi jàng parce que dama bëggoon dimbali sama yaay ak sama papa malheureusement bi ma demee ba affaire yi di xaw a ma nga ci benn société door a ci benn société ci biir milieu bi la paa bi yëpp gaañu mais terewul dama sonn parce que dangay dem sa mbokk yi nuyu leen dul la fay. ñu jógee si dëkk bi ñëw di la saaga ndey parce que gis nañ xale yi di la commencé toppandoo ci lug bi ngay def ak noonu mu nekk affaire bu bu bu yéeme sax mais comme man dama gëmoon dama nekk ni benn affaire su ma ko gëmee rek dama ci dem jusqu'au bout ma ni garaawul comme yàlla moom mooy maye moom lii bëgg naa cee tekki pour ñuy wax suba ñoom après ñu xam ma li ma doon def nii métier laa doon war ko xaw waru moom pour pour foo parce que gisoon nañ ma duma toox du ma def yenn affaire yi. jaar jaar ma jàngal àdduna. parce que jàng naa ci lu bëri forcé na ma pour ma góorgóorlu pour amal sama bopp moom ma jàngal tamit bon naka la ñuy amee amee yërmande parce que ñi ma xamoon man amuñu woon yërmande ci man genn wàll bi moom ma jàngal jàngal na ma lu bëri daal jàngal na ma ne àdduna il faut nga nga nga ñafe pour nga am moom sa laayaf jàngal na ma tamit nii bon joxee dafa baax dimbali waate dafa baax moom permettre tey instant bii nii damay dem benn instant yëre sax du ma ko am parce que man yëre bu moom dama koy maye. oui yére bu ma tourné nii léegi léegi su ma demee sama kër dama koy maye donc daf ma jàngal loolu garaawul woon ci man parce que instant bi laay doog xalaat ni loolu ay leçon de vie la yoo xamante ni dama ci waroon jaar pour xam li ma xam ni tey. bëggoon naa ñoom ñu fekkee fekkee lii quoi malheureusement sama papa moom ñu may def aar fekkewu ko fa teel a 89 la gaañu boobu xare la maire bi moo commencé fekkee bi may def aar tuuti rek ba. ñu jël ma ci benn societé jimbo nga xamante ni sama salaire bu ñëwee dama ko doon foofu laa commencé sama salaire bu ñëwee bu ni tey bu ni weer bi deewee kon bi ma dëkk dañuy xam ni tey weer bi dee na parce que dafa ma doon neex ma jël ravitaillement def ko ci saret jënd ay tàngal yu ndaw nii pour jox xale yi pour ñi doon wax xam ni man bon li may def nii métier la boo xamante ni yàlla moo ma ci dugal pour loolu mais bëggoon naa mu fekkee mu fekkee lu bëri bëri bëri parce que ku nekk boo amee waajur nga nekk ci dara. dangay ñaan yàlla li ngay nekk nii mu fekkee njariñ bi pour suba boo amee nga jàppale ko ci parce que sonn bi mu doon sonn ci yow man sama yaay dama doon dem programme mu xam ni man la mais su ñëwee ci kër gi dafay du wax ni man la quoi parce que milieu bi nekkoon kër famille la donc ku nekk da nga ma doon taxé nangam nangam moom mi ngi may seetaan mais bëggul nit ñi xam ni man maa ngi ki milieu bi seetaan na ma simu sax xàmmewu ma simu gaynde yi ma solu gaynde bu jigéen xàmmewu ma bi mu déggee ni man la waxul parce que xam na ni man la parce que seetaan ma donc daf ma jàppale woon man ci sama gëm-gëm fekkewul lu lu lu bari quoi. man sama yaay dama doon jàpp ni doom man la gënoon bëgg daal parce que même bu jógee marché même bu ma nekkee mag doon na ma indil ay beñe cere soow nëbbu ma jox ma ko xam nga par euh, bàyyi ñeneen ñi quoi. donc man dafa am fu ma tegoon foo xamante ni bon mënuma ko woon di di di imaginer daal waaw parce que même bi muy gaañu nekkul gaañu boo xam ne dafa feebar dem gaañu dafa dem ngénte bon relation bu bu nice daal moom daf ma joxoon tër trop waaw loolu laa mën a wax ci affaire bi. madame Rata Diallo. naamu. mais lu mel ni kankura. garde na dindi muuraay bi ñun simbuñu. bon riiru tribunal moom moom ci laa siiwee parce que ñun démb dafa ñu doon tere télé quoi démb bi mu yore daf ñu woon waruñoo teel a génn télé bi parce que. boo teelee génn télé te amoo expérience sa carrière ci art bi du yàgg donc mu ñu tere tere tere tere benn instant bi ñu projet rue tribunal bi amee dañ dem wax ko mu doog ñu bàyyi ñu génn télé mais doon naa génn ci ay affaire yu tuuti ay temps maam yaxi laalo théâtre xale yooyu noonu mos naa ci génn benn yoon mais rue tribunal moo tax ñu xam ma quoi. bon préparé wu ñu woon pour mu nekk rue tribunal donc beneen affaire lan doon nekk di di répété. après Vieux ak Faye musicien moo ñëw benn jour rek mu ni dama benn projet boo xamante tribunal la donc amuñu woon tur bi quoi ñun ñoo créé tur bi mu ni bon yow laa woolu ci nga jouel ma président parce que ni ma la gisee nii mën nga ko noonu la ñu créé affaire bi bon mais nekkul affaire yoo xam da ngay bind scénario di toog di xaar dañ doon nekk déglu rajo bi ay tës ay affaire émission yenn émission yi wax ci dundu àdduna bi nii ci lañ doon jël di ko tourné. donc noonu lañ ko doon defee daal maanaam dañu tourner tey par exemple dimanche samedi dimanche mooy nekk li ñu dégg ci semaine bi après semaine bee di ñëw bu ñu ko dawalee ñu jëlaat ay information pour tourner ko ci semaine bi loolu bi ñu koy def dañoo tiitoon sax parce que commencement bi bëriwoon na ay wax yenn avocats yi comprendre woon ak tenue bi ñu doon wax par exemple dañuy saboter tribunal affaire yooyu mais après la ñu seetaan affaire bi xam ne ñun moom saboté wuñu tenue bi parce que xamoon nañ ni tenue bi moom mooy moom mooy mooy institution bi quoi. donc boo ñu gisee ñu def ambiance dañuy dindi tenue bi après def ambiance suñu waree def benn pen ñu salaat euh, affaire bi donc noonu la affaire bi ñëwee mais xalaatuñu woon ni par exemple coow kii bi mu am noonu succès bi mu amoon noonu dina ko doon am parce que dañ doon ragal tamit dañ doon ragal lu baree bëri bëri coow lu fii dañ leen di jàpp dañ leen di moom comme man mosuma dem tribunal beneen saa dama doon ragal a génn sax <laughs> waaw <laughs> donc après lañ dem bon ñu essayé ak s mu jël ko muy daw foofu noonu. dama moom fa par exemple benn quatre ans mais bon daw la boo xamante ne tey ñu dañ doon wax ni man boog dama doon wax dama doon jàng ba tey parce que xam nga fii Sénégal da tool benn instant boo xam doo tal lan nga war a am da ngay tal succès bi wala nga tal nii man damay jàng pour donc après am nañ ay problème ci affaire xaalis be xaalis am na xaalis amul après si la contrat bi waa 2S arrêté quoi. man nag dama nekkoon ak ay mag yoo xam ne ñoo ma jiitu ci aar ku mel ni démb bi ak euh, maire Sën Sène moo doon xamal ne bis boo demee ba yàlla may la succès fexeel ba bul yanu succès bi na la succès bi yanu succès bi euh, yanu la mooy di ne yow bul sentir ni li ngay def euh, bul sentir ni par exemple nit ñi ñu ngi la topp naan la lii neex na lii chaque jour saa ñu la gënee wax ni affaire bi ngay def neex na ça veut que neexul donc loolu moo ma permettre que tey lu affaire bi bëri coow coow coow man duma ko sentir parce Euh, damay xam damay xam ni euh, yenn saa yi da may wax sax dafa neex ma jàpp ne da nga may critiquer moo tax au fur et à soo may gën a wax ni dafa baax li ngay def naaj na pour man nga demee baaxul wax ma fii ngay jaar moom gën a moom laay gën a kontaan ka xanaa ma toj nga fi comme senegal ni ñu koy defee. mais donc démb daf ñu doon wax ni succès bu ñëwee yow da ngay xam noo koy gérer bu ko sentir bul sentir ni li ngay def neex na bul sentir ni nit ñaa ngi lay topp bul sentir ni danaan la booy toj nga fi parce que. sénégalais saa waxee toj loolu démb dafa ko defoon suñu bopp nag ba mu dugg mooy sénégalais saa yoo waxee toj nga fi rek ça veut dire defoo dara <laughs> loolu démb dafa ñu ko jàngaloon ba nga xamante ne bi ñun bon man xaw ma ne woon sax man am naa succès du sentiruma ko sentiruma parce que bi ma nekkee Moustapha ni ma meloon laa mel ba léegi tey bi ma yàlla mayal oto ci tataay laay dugg même rue tribunal bi mu doon am bës bu metti boobu noonu ci tataay laay dugg wala mu dugg kalandoo mun garaawul rue tribunal nag <laughs> affaire la boo xam ne chaque jour man damay créer parce que sama problème ak mooy daaw ma répété ak nit ñi donc man jour tournoi rek laay ñëw man maay créer samay affaire bopp mais daal bi ma ci gën a bi ma ci nga xam ne moom chaque instant mu xalaatee damay ree mooy bi may àttee euh, pël bi moom bi ñuy àttee paa sàcc nag bi mu toog di kaas ndekete papa mooy sàcc bi <laughs> loolu moom chaque instant dama koy <laughs> chaque instant parce que fee la yoo xamante ni dafa exister. dafa dañu koy expliquer après ñoo ci créer loolu donc loolu moom dama koy seetaan sax instant sax di reetaan parce que dafa dafa am leçon boo xamante ni mu ngi jàngal ñi nga xam ne ñu ngi ci kanam ginnaaw baar bi mi ngi jàngal ñi nga xamante ni tamit ñu ngi ci dëkk bi di dox nii rek. Mhm. démb bi ñun daf ñu defoon comme comme doom parce que ñun rek ñoo nekkoon troupe boo xamante ni dañuy jàng dañuy dañuy dañuy nekk salle de répétition nit yor yor taxaw. mel ni ku nekk école donc daf ñu defoon comme doom yu mu jur donc xam nga nit bu nekkee daf la yor yor la yor la yor la année yu bëri ba tudda la doom ça di dire kooku am na foo xamante ne fa la teg tudda na ma doom tudda na jee asu sare doom tudd na yeneen artistes yoo xam ne benn bi dafa demoon ba ñun artistes yi ñoo doon famem parce que lépp lu muy def ñun lay waxtaanal lépp loo xam ne da koy waaj a def ñun la koy wax par exemple tey ba fii mu bi mu gaañoo fi ñu ko denc nii man la fa njëkk yóbbu. xam nga Tivaouane la laa nekkoon jamono boobu maa ngi benn groupe benn troupe bu ASC koñom bu tuddoon ASC foo ñi ñu benn jour ñu dox taa dox nii ba ci biir bi mu ne ma kaa ñu ànd ñu duggee ba ci biir armée bi bon jaaruñ ci porte bi mu bi nga xam ne mooy porte centrale bi xam nga armée Tivaouane dafa beneen porte ci ginnaaw moom ci porte boobu lañu jaar bi mu duggee ci porte bi rek dafa taxaw. dañ dugg nii ci porte bi rek après moom mu taxaw mu teg loxoom fii mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma gis nga fii ma teg sama loxo bi mu ne ko waaw mu ne ma suma ma deewee nag fii lan may suul duma ko mu ne jënduma ko nag ñaanuma ko mais xam naa ne fii lan may suul te su ma amee diggante soixante douze soixante quinze soixante seize ans laa génn àdduna bi mu ne ma yow suma suma suma suma su gaañoo su ma wàññeekoo yow dangay bokk ci ñi ma yóbbu Tiwaawan te avant muy gaañu gis na ma ñetti yoon ñeenti yoon ni ma baa tukki woo fan yi ma ne ko non maa ngi fi de mu ne bul dem de ma jege na de waaw bul dem bis bi jege na de léegi mu ñëw yàggatul de mbay boo boo tukkee tam bul fay sa téléphone buy buy nàngam heureusement ni mu ko waxee noonu la demee bi mu gaañoo man ci ñi nga xamante ni maa fa njëkk ci laa bokk li mu waxoon lépp lépp lu ma waxoon ci bisu gaañam dafa am. te man ma fekkee ko euh, suñuy wax xëy na wàllu yàlla wala ku yàlla may kooku yàlla may na ko. Euh, lislaam euh, julli nag moom daaw ma ko def bu ma daan gis sama gaay di julli dama leen wax da ngeen ñàkk fayda man aw ma bi ngeen am nii <laughs> gaay yi julli ma ni see am ngeen jot de ay julli yi nii mais yàlla daf ma may benn jour ma tëdd guddi ma. ma gis benn affaire bon affaire bi ma gis nag comprendre mu affaire bi lan la parce que gis naa ay jigéen yoo xam bu ñu reetaanee seen bëñ yi comme or lay génne ñu ni am na benn kilifa buy ñëw mais bi muy ñëw. bi muy ñëw kii bi rek laa gis leer bi laa gis ni rek après bi ma yeewu laajte ñu ni yonent bi nga gént ah donc su ma su ma tegee ay ñetti fan juróomi fan juróomi fan affaire yooyu ci laa gént benn góor bu am sikkim bu weex ni rafet ma yeewu laajte kooku ñu ni Baay la ma génn di ko laaj benn nit fekk moom mu ngi yor photo mu ne ma kii la ma ne ko waaw mu ne ma kii mooy Baye Niass après la commencé déglu ay affaire am nii déglu ay affaire am di commencé julli mais même julli avant ma koy commencé tamit dama doon gis ci ci nelaw su ma jubee nit ñi ñu def nii seen bëri nii maanaam su ma su ma ñëw ci ful nii ñu def seen bëri nii bi ma commencé julli. benn jour mu ci gént bi ma gis sama yaay mu ni il faut ngay sol mbaxana parce que sooy dem ci nit ñi nii il faut nit ñi téye seen bëri te baaxul donc après si laa yow ma gis affaire bu ñuul bi tamit waaw ah, noonu la affaire yi demee donc xam nga artiste moom sooy toog ngay expliquer yi ngay gis sax da naan dafa comédie wala dafa yeb dafa yebaate Sénégal loolu moo fi xew te ay nit lañu comme nit yi ay ay jullit lañu li gars yi di def lañuy def jànguma alxuraan. mais ci internet bi laay jànge alxuraan mhm. sëriñ yu bëri dama leen gis sëriñ yu bëri dama gis sëriñ Saliou laa mujj a gis ci train gis naa euh, maamu sëriñ Modou Kara su fekkoon ni bañuma ay ay yeneen wax sax mooy loolu fi Sénégal <laughs> bàyyi woon noppi euh, sama loxo bii sax bind nañ ci Mouhamed sallallahu damay julli ni di jàpp pour dem jumaa ma gis ñu bind ko fii ba fii maa ngi ak ak ak ak ak yi mais dafa fooy toll foo xamante ni am na yoo xam boo ko waxee dañoo kii dafay comédie te comédie ak diine man comédie heure laa ko def su jotee ma def ko su après su jeexee jeex na parce que man ñu ngi may gis ni ñemewumaa dox cinq pas te ànduma ak jàpp ñemewumaa dox cinq pas te yoruma course di di. di di di sàbbar yàlla di tudd yonte yàlla Muhammad parce que tey su ma demee ba xamante ni maa ngi julli man gis bi ma ko gis xam naa moo tax te wax baaxul parce que li may li may gis ci ay nit yu baax dafa bëri torop waaw dee dee nag moom fii ma toog nii sax maa ngi koy xalaat nii parce que nit ñu nekk war nga xam ne dee dee la yàlla njëkk bind ci li ma xam Ndella yaa li njëkk bind dund donc képp kuy nekk ci àdduna war nga comme ni ñu ko bindee ci alxuraan war nga jaamu yàlla ba defee ni tey ngay dee donc chaque instant nag dañ koy xalaat parce que moom suñu compteur yaram yàlla moo ko moom te moom moo moom moo xam ban heure lay arrêté donc lu ñuy xalaat la loo xam ne lu war a am la lu ñuy egg lu ñuy dañuy ñaan yàlla mission bi nga xam moom la ñu yàlla doxal ñu doxal ko ba jour bu fay may rek ñoo xam ni foofu la souvenir bi ma bëgg bàyyi mooy ci li ma nekk nii rek ñu xam ni man yàlla mi ma fi sàkk bi ma waxee jaamu leen maa ngi doon góor góorgóorlu di ko jaamu duma dem ay jàkk neen parce que soo demee ci jàkk yi walla nga xam ne jumaa damay xaar ba nit ñi ñëw ma dem ci ginnaaw parce que dama mos a dem benn jumaa di julli xale yi topp ma ba xabru Baay bi sax su ma demee gàmmu dañ may tere ma ñëw fa yenn heure yi damay bàyyi bay trois heures du matin ma dem parce que. xale yi man ñoo ëpp lu ñu may topp damay dem jumaa xale yi topp ma am ñoo xamante ni duñu comprendre kii dañuy yaakaar sax da ngay wanewu ma dem jumaa waa ji téema ni ma fan nga jëm ma ne ko jumaa mu ne may war a bàyyi wanewu waaw am rek jumaa nga xam ni xale yi ñëpp fi ne ngay ñëw di wanewu na wa tontu ma ko parce que loolu taxuma jóg waaw loolu moo tax du may dem jumaa damay bàyyi ba nit ñi bari après ma ma dem hmm, souvenir boobu daal bëgg naa ñu xam ni euh, ñuy jàng alxuraan tamit comme man bëggoon naa de daara bëggoon naa fa nekk nekkuma fa ñi jàng alxuraan lépp lu ma am ñoom laa koy jox tey boo ma fayoon cent mille dama koy diviser par trois trois bi benn bi mooy suma kër benn bi man benn bi taalibe yi nu mu mën a toll nag dama leen koy jox waaw loolu daal bëgg naa yàlla lafal ma cat bàyyi ma ci loolu dund boobu noonu parce que dund bu ma neex la. Hmm. ah regret bi may am mooy sama nopp yi ma ma bënn quoi loolu rek parce que yaakaar naa ne <laughs> leneen li ma def yëpp yaakaar naa ne xaw naa baax parce que bon sama moroom yi li ñu doon def yëpp dafa ma ko topp ma 15 ma mosuma mosuma sàcc mos naa nag di solu gaynde bu jigéen comme loolu aar woon mais maa ngi koy regretter nag lu ma ko doon def parce que dama jàng si lislaam nirul nirul jigéen dafa araam donc loolu dem lu may regretter la. loolu moo taxoon ma bënn sama sama nopp yi waaw loolu daal maa ngi koy réccu bu baax a baax a baax waaw ñoom nag ñu ñoo màggandoo ci benn group nekkandoo xale dem ñu bari bëri maa leen jàngal aar bi ñu def parce que ñu bari ci équipe nawetaan la nekk nekkoon démbi dafa ma doon yóbbu fa pour ma pour ma nekk ak ñoom répétition donc ñu bëri bëri man maa leen daanaka du ma sax maa leen formé mais ñun ñoo nekkandoo ci dem bi ba màgg kon ay nit yoo xamante ni dañoo yàgg ànd depuis ay par exemple mën ak Diallo suñu xoolee par exemple def nañ benn exemple 30 ans boo xam ñu ngi ànd depuis xale ñu ngi ànd boo am na ñeneen ñoo xamante ni dañoo fekk ci biir affaire mais base bi moom danoo yàgg ànd danoo yàgg ànd. waa mhm. waaw Marodi nag pot laa doon waxal ci Facebook bi donc mu ni ma boobu rupture mi ngi daw mu ni ma dama bëggoon ñu tase waxu moom sax lan la. dama bëggoon ñu tasee Mariste parce que dañu am benn maison de production bu ñu war a def ay affaire donc xam nga àdduna yàlla da lay <laughs> dafay dafay jàngalaate bi ma ñëwee fi ma doon xaar pot bon mënu ma woon accéder parce que dafa fekkoon élèves yi wàcc dañ ma mujj dawal dugal ma ci biir école bi pot ñëw après ñu ànd mbaroo si lañ ma expliquer lan lañ bëgg ñu def donc foofu lañ débuté mais yàgg naa boobu yàgg yàgg na trop sax mbaroo di ma fa nekk yàgg na. man yàlla dafa dogal lépp loo xamante ni gis naa ko ma ne lii maa ñaan yàlla ma bokk ci yàlla daf may may loolu polygame dama ko doon seetaan ma ne may xool ni ñu toogee ma ne fii am naa fi place mais xaw ma woon ñan ñoo ko yore donc bu moom mosoon nañu tase ci benn production bu tabaski bu ñu doon def comme nu ma koy waxee soo demee polygame da nga yaakaar ne ñi fa nekk ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ku nekk danga xam sa morom. mais malheureusement que man dama am benn silence boo xamante ne noonu la ma yàlla tëggee bon loolu daf may may occasion sax pour mu waxaale man noonu laa mel su ma duggee ci milieu boo xamante ni surtout milieu tournage dan maa yar ba nga xamante ni ma amoo droit foofu perturbé amoon droit wax benn place nga war a toog xaar li nga war a def après su paree nga dem sa yoon loolu démb moom moo ci moom moo ci yar mais soo comprendre da nga yaakaar damay tirer star wala affaire yooyu fekk du loolu damay. ñëw polygame gis naa nag ñin mel ñëpp baax surtout maa ngi leen koy wax ma leen euh, ni ngeen di def artiste bërul maison de production yi nga xamante ni noonu lañuy def artiste parce que dañu teg artiste place mettre la à l'aise na lay jox scénario bàyyi la nga ñëw ak sa expérience boobu def lu naturel mais liy sonal suñu artiste aar yi aar bi léegi mooy dañ lay bëgg a def loolu loo xamante nekkul ci yow jàngoo ko defoo ko dara da sonn. mais soo duggee polygame na nga xam li ngay def nii chaque jour nga gis ko seen kër chaque jour nga gis ko beneen kër chaque jour nga gis ko feneen donc soo si duggee naturellement rek da ngay da ngay jàll. donc ñoom ñëpp maa leen di jaajëfal occasion la pour ma jaajëfal leen ci man nit ma téewe te mu tudd Jigo yaa Jigo <laughs> Kebe ak euh, Pa Omar kii scénariste bi mu tudd si sax Baye Samba Diaw suñu pap boobu. donc li ma ci gën a neex mooy man balaa may ñëw xam nañ man maay kan Père Samba Diaw man dama ko nuyu boobu Kébé nekk foon dafa tukki woon defe na Père Samba Diaw dama ko nuyu rek mu ne ma ça va ça va bien mu nga baal ma mais xam naa dèjà yaay xam naa doo lekk ceeb xam naa doo def lii xam naa doo wax ci tournage donc dan lay gëstu avant ngay ñëw donc loolu dafay baax ci artiste bi nga xam kii kan la dama ko mos ci benn tournage man ni balaa ñuy man bu man amoon maison de production. damay wut euh, nit boo xamante ni dafay nu ñu koy waxee sociologue xaw ma psychologue su ma defee casting artiste bu mu leer ma ne kii li ma soxloo mën na ko après mboole ko psychologue mu xool ndax kooku boppam baax na la baaxul parce que nga gis artistes yoo xam ne yi ñuy def seen bopp am na yu mu àttanu daal mais bon polygame daal maa leen di maa leen jaay fa te dama fier ci bokk si parce que am na tey ñoo xam bu nekkoon ñoom ni ñu ci duggee nii duñu xaat duñu wax ni sama rêve bokk ci dañ koy rey wax. mais man sama rêve la woon tey man bokk biir polygame te bi ma demee tamit regretté wu ma lan moo taxoon ma bokk ci. waa ceeb nag xam nga temps yi ma nekkee ci cabillon animation yi maa ngi woon ci comme produit moo noonu dama doon dem tukki ci àll yi lu bëri donc dama mos def Tamba ci seen booy dugg Tamba am na ñuy jaay restaurant foofu noonu ma lekk fa benn ceeb après bon jamono yi gars yi ceeb yi dañ ci def fël-fël xaw ma affaire bi des sama fii nag lu mat une semaine dañu mais jour bi ma lekkee foofu noonu laa jóg ma ni ñu ma àndal bàyyi naa ceeb tey. mais gëmuñu ko woon suñuy def euh, suñuy añ man dem jënd mbiskit ak meew ñu ni man dama dof mais léegi ça fait vingt et wala yooyu ah lekkuma ceeb hmm. <laughs> loolu moo tax ma bàyyi ceeb quoi mais tey danga ko wax benn milieu ñu ni <clears throat> dafa feebar da nga jabet danga nga comme bi ma demee paa bi loolu la ma njëkk laaj ndax da ngaa feebar non mosuma dem hôpital dara jotuma maa ko bàyyi moo may permettre tamit yu programme yu bëri artiste nu mu fa dem heure añ. parce que soo ñëwee toog nga ne duma ma lekk ceeb ñu ne dañuy jaay affaire star moo tax du lekk ceeb te bàyyi naa ko avant man may nit ñi di ma xam sax su ma bëggee kontaan ci biir taalibe laay dem <laughs> su ma bëggee kontaan dëgg damay dem ci biir taalibe yi di lekk di ko bokk ak ñoom di di yor xaalis cent franc cent franc di leen ko jox wala ñu topp ma ni ma dem ci jaaykatu soow jënd caagi rek soow loolu mooy sama àdduna man bon aw ma aw ma beneen beneen affaire comme dem ay place nii kontaan naa fa dem parce que xëy na. dama am xarit bu fa nekk dem fa mais du dem dancing du ma dem ci affaire yooyu noonu mais daal sama amour dëgg-dëgg bi nga xamante ni su ma ko defee dama yëg ni kontaan naa mooy ma nekk ci biir taalibe yi ñu yéeg sama kaw di di def loo xamante ni am ñoo xam bu ñu ko gisee dañoo est-ce kii wér na sax loolu mooy sama sama kii moo waral sama anniversaire ñoom laa koy defal chaque année chaque le 21 mars ñoom laay defal affaire bi parce que damay togg ay xéewal di leen di ko yóbbu ci daara yi nga xam ñoo nekk parcelle Cambérène ak yooyu. waaw message bi may lancé senegal mooy jeunesse Sénégal moo ñu gëm seen bopp ñàkk gëm sa bopp moom lu weesu par exemple nga liggéey benn un million xam naa soo ko waxee yaakaar ni nga mën a investir fi nga dëkk nga dugal ci dugg ci gaal bi perte ko perte dix perte laste wóorul ndax da ngay ñëw après da ngay dangay dangay da ngay dee après sa famille sonn. beneen mooy di ne dem ku ba dem am na yoon boo xam ne boo fa jaaree da ngay dem facilement euh, te ñu bàyyi par exemple politiciens yi ñu jox bopp man moom toujours dama koy wax même ci réew tribunal koy joué parce que politicien bi nga jox sa bopp moom intérêt rek lay xool bu xaañ jotee moom day toog fee fexe nun ko jàppee teel ko jàpp yóbbu ko mu génn ci xaañ bi yow ki nga xamante ni inconscient nga topp ci di xaañ ñu rey la après sa famille perte nan gëm seen bopp maam ñi nga xamante ni danoo jàng ñu dem. fexe am formation boo xam ne tey suñu bëggee jël ak say diplôme dafay yomb ku nekk dem ak sa conscience bopp bañ a déglu kenn te ñu xam ni Sénégal bi ñu nekk ni ñun ñoo ko moom président Macky Sall bu fi lu mu fi mës a def lu mu fi mën a def doo ko fi bàyyi ñu bàyyi kaar yi ñuy toj parce que Macky Sall moom ko ñu bàyyi invest li nga xamante ne dañ koy defar pour dëkk bi après ñu yàq ko amul sens parce que tey président bu fi toog danga fi Abdou Diouf jaar na fi Senghor jaar na fi te bi mu dee yóbbaalewul dara moom li mu fi def donc na jeunesse bi xam ne àdduna euh, bi ci kanam ñoom ñoo koy seere donc ku jàngul nga dem jàngi ko amul formation nga dem defi formation pour suba boo nekkee kenn ki nga mën a servir sa bopp loolu daal maa ngi koy wax. ñi may seetaan seen people maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que tey bu nekkuloon ñoom ñi abonné ak di seetaan xëy na li ñuy def du am sens maa ngi leen di. gërëm ci confiance bi ñu am bi nga xamante ni dañu abonné ci seen people di seetaan li gars li def donc te di leen ñaan ñu gën a ñu gën a abonné te man ni ma ko jàppee étant artiste dama naan critique du soxor quoi man tey damay dugg ci benn affaire ma gis ñu bindal ma benn commentaire ma joxe sama numéro pour déglu kooku ban critique la may jox donc ñu ngi leen di jaajëfal mais li nga xam ne moom ëppale importance mooy. par loolu du du seen people ñi nga xam ne ñoo res gouvernement bi nañu yërëm nit ñi quoi parce que tund bi seer na torop maa ngi koy wax ci barki démb defe naa benn épisode te bi ma koy def boobu sax xamu ne woon affaire bi soble xaw ma lan dina seere noonu donc nañu wut ay agent yoo xamante ñooy contrôler boutique yi di contrôler jaay bi parce que mënuñu concevoir tey jaay boo xam ne chaque jour mu gën a def nii yow mi nga xamante ne yaa toog sa bureau sentir ko parce que tout est possible mais ñi nga xamante ni ñu ngi ci ginnaaw toog ñoom tey benn 1000 francs ñu bëgg ci añ bëgg ci reer bëgg ci ndekki dafa metti donc gouvernement bi nañ xoolaat seen liggéey wut ay comme man bi ma nekkee xale gisoon naa borom bitig yi tey bu service xam lan ñii nga res affaire prix yi bu ñuy ñëw ñu daw tëj seen boutique yi wala ñu am neneen ñu def donc loolu il ñu dimbali ci dimbali ci jaami yàlla parce que tamit dëkk bi doon <laughs> affaire yi saf na quoi. affaire yi saf na donc maa ngi jaajëfal nag àdduna bi yëpp di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy encouragé ci ñu li ñuy def ñu ngi leen ci ñu ngi leen di jaajëfal baax parce que tey am na nit ñoo xamante ni loo def dañ ciy dugal seen loxo du ñoom am temps pour tudd leen mais képp koo xam ne yaa ngi encouragé nit bu nekk ci yoon di dem ak lu mën a doon même buy dawal saret buy def leneen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale Sénégal bi yëpp yàlla def fi jàmm tamit. ñu nekk ci mbënn bi gouvernement bi teel leen jàppale pour ñu génn ci loolu euh, di ñaanal ñi feebar ñëpp yàlla defal leen jàmm waaw loolu daal muy message bi nga xamante ni euh, ñu ngi jëm ci màggal Tuuba ak yeneen affaires yi chauffeur yi nañu def ndànk pour yóbbu nit ñi ci jàmm indi leen ci jàmm daal sant yàlla.